jër ngeen jëf suñu mbokku téléspectateur yu info rewmi point com ñi ngi toog ak euh, Mamor Mbaye yoonu géej gi euh, ñu ngi koy sant bu di ko gërëm ci accordé gi ñu accordé jataay bi ñu bàyyi la nga nuyoog suñu mbokku internet. jërëjëf euh, sëñ maa ngi leen di ziar di ziar bu baax Serigne Touba Cheikh Mountakha tey ñaan mu yàgg fi ci wér di ziar itam mboolem téléspectateur yi nga xam ne ñu ngi bàyyi suite bi di xel. site bi di info réew mi euh, ak téléspectatrice am ñoom ñëpp. Euh, sëñ Mamour Mbaye tey lu waral jataay bi euh, coow li li naan lu xew xew xawma lu xew di njàmbat mooy diggante soxna Aida mën naa ni ak yoonu murit sax laay wax ndax bu njëkk diggante soxna Aida la woon ak waa kër ñenn ci njabootu seex Béthio yi ñu gis xalifa bi dalal na ko ñaari yoon. Euh, bi ci topp bi mu génnee euh, ay wax yu bari jib na ci donte xamuñu li ko xalifa bi wax mais ginnaaw bi moom daal euh, gis nañ ay ojo yu baree bari yu mu biral wane ni ci lim nekkoon ba léegi da cee gën a nekk wane ni sëñ bi da ko cee gën a encouragé tey nag ñu gis xalifa général def déclaration boo xam ne si wane daal moom tey bu rey daganoon sax dañ leen rey jàngat nga ci. waaw jàngat bi mooy gars dañuy jaawale pexe ak Pastef pexe mooy naa fexe ba doon dara mais fan nga koy doone ak noo koy doone ndax dama jàpp ne lu sëtub sëriñ tubaa sañut doomu sëñ tubaa sañu ko ndax fi mu ne nii may wax ak yow daaru salaam kafa mag jigéen la mais déggoo mu wax muy soxna Daba Mbàkke moom maam Cheikh ay doomam ñoo toog xalifa waxuma la rakkam de doomam parce que sëriñ maam Mor Faati mii xalifa maam Cheikh doomi soxna daba ségu la soxna daba bàjjanam la waaye yow ndax xamoo soxna daba ak daaru salaam ni toll boo duggee daaru moxti génne fa ku mel noonu soo duggee paaleen yow sëti Cheikh Ibra Fall yi nga xamante ne ña nga xamoo leen xam nga lu tax donte ñi ngi yëngu di def lu ñu war a def waaye dafa am fu leen lislaam tënk jigéen amut droit sax di julli moroomam taxaw ci wetam menn moroomam jiite moroomam est-ce que comprendre nga li ma la wax maam ñaari jigéen bu waxtu yu jotee dañ leen nag ku ne ber sa julli jigéen mënta jiite moroomam parce que l'islam moo leen tënk te l'islam moo dooleel jigéen gis nga avant yonent bi di wàcc jigéen bu musaana gane jamono dañ koy suul Seydina Omar mës nañ koo laaj ne ko ana loo ci bàyyi xel ci suul jigéen mu ne mës naa di suul sama doom joo xam ne bi ma koy suul mi ngi may faxasal sama sikkim bi te moom laay gas naan ma papa sa sikkim baa ngi taq suuf mais jigéen bi ko lislaam dooleelee ba pare da ko wutal limite jigéen am na moment boo xam ne sax du mën a dugg jàkka yow fi mu ne foo jàppoo sangu set mën ngaa dugg jàpp jàkka mais jigéen am na moment boo xamante ne mënta dugg ci biir yi nit sunu borom ko tënk. kon bu demee ba bëgg ne day tudd doom dafay nangu njébbal góor di ko raamal fu ko teg ci lu sëñ Touba musta créé soxna Aminata mooy wéy juru sëñ Modou Moustapha keroog bi mu wàccee liggéey sëñ Touba da li ma yàlla def digal ci cerno muy muy seexal su ma ko digaloon ci jigéen ma seexal Aminata waa léegi dama lay wax benn et puis may wax cantaakon yi man seet bee ci cuun day sama lépp moo ma nuyoole woon ak soxna ay dem yi bu ma Touba TV buñ ma saan di dem foofu man la ñuy yebal te danaan na Mamour ñëw su ma ñëwee soxna Ayda moo ma daan dalal xam na ma bu baax dan daan jokkoo téléphone mais tamit nañuy seet nit ñi dimension yi ñu leen di yóbbu da ngay sa cantaakoon bu ne Cheikh Béthio mooy Serigne Saliou daal di ne Serigne Touba am Serigne Saliou mooy Serigne Touba kon kay nañ génne sa sëñ Saaliw rek benn yoon daal na Seex Béthio mooy sëñ sa sëñ Tuubaa am na ñu ko ciy wax te Seex Béthio du ma sa doon sëñ Tuubaa mënu ko sëriñ Tuubaa la kenn mënta doon tey jële nañ ko fi yóbbu ko sept ans neuf mois exilé sëriñ Tuubaa wowul kenn ko ko jàppale tegut cin tegaluñ ko cin réglé yoon wi ca làmbar na ak maa yomba man maa dem ba foofa Seex Béthio fii la am problème dañ koo téye. mais dañoo mujj di ko ñaanal liberté provisoire dañoo mujj di ko ñaanal di ko defal ay ay ay ay ay repos ay ay ay médical naan yaramam santé mayetu ko parce que nit la moo tax dafa am dimension mu àgg Serigne Touba nag ku nu koy tëkkaleel say waa kër ñi ngi lay nax man Serigne bi ma su ko jébbul sox du Serigne Touba. mais soxna Aida coow li ni mu demee Euh, sëñ bi recevoir na ko recevoiraat ko mais mu mu mu mu dëgër fi mu dëgër ah ni moom daal yoon yi moom da koy woote am na ñuy wax sax ni dafa am ñu ne ci ginnaawam am na ñu ci tudd sax ay ñeneen ñu bokk ci yoon wi ne ñoo ko dooleel. waaw parce que dinañ foog ni loolu la man mii sax njortu naa ndax it damaa xam ne jaru ko yow àdduna bu la yàlla terelee dootoo leb dépense di jigéen say moroom nga nekkal di xale bu ndaw yàlla teral la boole woon laa ko toll ni mu génn àdduna. nga nek ak say morom bo force bay forcer ben affaire bo xamni Serigne Touba lako téré tere maanaam na ay da du mam Mor mbay mo ne ko bàyyi li Cheikhul Khadim ko wo ñaari yoon ñek di maslak mom. ndax serigne Muntaxa yoon wi bu bu bu jaral nako sax neexal nit ndax bëgg serigne Touba mais ba do la ndekete du jup gàcce agu ci bu démé bay làqatu ñu naan amatul sécurité du xol bopam waye pour le moment yaangi deg dégg ci ci ci ci ci réseau yi ak euh, ci ci presse bi ñu ne police ma nga kërëm ba nek fa mu nekkoon bu démé bay daw guddii xaju nyu ci ko am bi ngay ñew ñi ngi lay téru ngay daw di laqatu do xolaat sa bopp Aida jigen la am avenir dem ba serigne muntaka nan ku bon nan ko sanni ci serigne serigne Hmm? est-ce que baat yooyu du xool nan la koy tuubee man daal su ma ko doon conseil loolu laa koy wax. mais lan moo ci nar nekk taxawaayu taalibe yi ndax sëñ bi moom wax rek la man wax na ko wax na mais euh, taalibe yi nag lan moo ci nar a nekk seen responsabilité ci mbir mi bu fekkee dafa wéel euh, di wéel yëngu waaw man moom xam nga xam nga ma waxee taalibe yi lii moo ci nar a nekk seen responsabilité day mel ni man maa yor responsabilité taalibe yi maay wax ci seen tur te tuuti naa ci. mais daal dégg naa ñoo xam ne moom ak ku mel ni man metti nañu te murit bu ko dara mettee amut nu mu ko mënta faje loolu daal laa xam ne mooy lay wax mais naan la taalibe yi lii moo ci seen responsable l'essentiel daal kàddug Sëñ Tuubaa gi nga xamante ne ñun moom la ñuy ndamoo nga xam ne bu ma ko déggoon tey ab taalibe na ci Australie ñoo yem benn dégg-dégg gis nga démb bi bi sëñ bi génnee def sorti gis nga murit yi niñ def. loolu nag mooy waral mooy waral ne ki fi nekkal sëñ Tuubaa kàddoom nañ koy sàmm ndax koo xam ne bu ne woon na murit yëpp faatu dañuy faatu tey bu ne dara metti na ma duutut neex benn murit sëriñ Muntaxa bu ne woon bu leen lekkati suukar murit yi dañuy pare ci suukar suukar am problème <laughs> sëriñ Muntaxa bu ne woon ceeb bi ba leen ko nu ba ceeb sëriñ Muntaxa bu ne woon weex na dañ naan ko tàll mbakke duñ lijjanti lu tax maa murit moo amul fitu war te yooyu daawut am maanaam sëñ bi lu tax mu war a wax lu tax waxul lu tax nàngam ab murit danaan tekk di déglu sëriñ bi bu sëñ bi waxee mu jëfee. Euh, waaw waaw parce que xam nga lu tax dañ koo wax mu génn ay waa këram surtout ñoom yu Samb boo yooyu mm-hmm. nañu yem. moom bi ko bi ko sëñ bi recevoir Saliou Samb dafa génn def benn sortie maanaam wax ni sëñ bi daal. loolu mooy bëlëfee taalibe yi ak déformé waxi sëriñ bi parce que la mu ñoom la ñu waxoon ne loolu la loolu la sëñ bi wax man bi ma ko déggee dama ni d'accord kon léegi ayda doon na xalifa. mais waaw mais bi ma li avant sëñ biy génn man parce que yoon wee ma ñor nag avant sëñ bi di génn di wax dem nañ ba am information ne li ñu wax ñoom c'est pas vrai dañuy fen li ñuy wax du dëgg te bi sëñ bi génnee confirmé na ko sëñ bi bu demee banaan bu doon ca jamono ju jëkk ya dañuy dagg sa bopp léegi imagineel wax boobu sëriñ bi wax ak ñoom bi ñu génnee li ñu wax te sëriñ bi daa baax rek barke sëñ tubaa sëñ Muntaxa moo baax sëñ Muntaxa baax su ne woon bu mu waxati ci sëñ Tuubaa dootu ci wax murit yee ko du yi est-ce que xam nga sëñ Muntaxa moo jiit moo moo yilif képp kuy sujjóot képp ku sa xel di dem Touba sëñ Muntaxa mooy sa kilifa kooku nag dañoo war ñun ñëpp ñun bi yëpp ñu jàppale ko niñ ñu koy jàppale fexe ba meram muy bañ di jóg ñuy xool suñuy jëfin di xool suñuy waxin xool sëñ Muntaxa suy wax lim lay wax nan nan nan bëgg yàlla nan topp yàlla rek te topp yàlla mooy topp sëriñ bi loolu ku miin kàddoom miin nga ko. est-ce que yow gis nga benn doomu suñ muntaxaa bu jigéen xoolal soxna maam jaara mu suñ muntaxaa fii la yor école boo xamante ne li muy formé ci ay nit dégg nga ko mu yëngu kooku tey mook Aïda Diallo ku ci gis sa morom ko war a sukkuraam nee ma Aïda war a sukk doomu suñ muntaxaa dégg nga ko mu yëngatu soxna maylaat laat mu sëñ Abdou Lahad barke Cheikh Ahmadou Bamba daara jam yor li muy dimbali ci dongo daara kenn xamut nu mu toll ay dana dégg soo ko gisee xam ne kii sëñ Abdou Lahad tey bàyyam waaye tey bu ko sëñ Muntaxa woolu woon rus naa yëkkati kàddu yoon wi dafa am ay principe am nu muy doxe gone gu dudd bërki démboo njaay du ñëw di ko changé nit a ngi ci ginnaaw mag ay lobby yooyu yëpp maa ngi koy dégg mais ñun lobby ay mbàkke mbàkke ñi ngi ci ginnaaw loolu yëpp man gëwuma loolu man gëwuma sëtu Serigne Touba nekk ci ginnaaw koo xamante ne day yàq man loolu gëwuma ko gum Serigne Saliou sam tuddu nga ko legi borom xam-xam la euh, koku noko ko mën dal xam-xam mom xam-xam borom xam-xam amul. ki jëfé maam li jëfé moy sa xam-xam firit ab aya ba paré bo firé aya aya bi rafet ba paré nga jëf jëfin wo xamantene ah, day day contrer nga firi loolu du xam-xam parce que sondel sam papa dafa ne mo won damay gis ngay waxtan ci serigne bi manako wa bul yor jukko sondel mun ko papa lan moy jikko sondel, mu ne ma sondeel day leral waye day lak day sey lolou moy li ngay wax nang ko man maam mor nak mom lu la nit wax mako def waye kenn rek la bëgg muy borom photo bi kep léegi bu continuer deugar fi deugar nak waaw bu boba ñun murit ñu deugar fi deugar rek waaw bu continuer deugar fi deugar nu deugar fi mu dëgër li seigne muntaka bëggay am. ay Aida lim bëgg du am li sëñ Muntaxa bëgg mooy am man maam Mor maa la ko wax barke Cheikh Ahmad Bamba Euh, euh, euh, amna solo benen bi munu mënuñoo daanal ba juk te tuddu ko moy ki nga xamne ci si oustaz Omar Omar Sall dañ koy wax fan yee amna cio coow yu fi cio won digante mok seigne Bass abou khar ba yow mi sax génnoon nga def ben sorti tontu won ko ñu gisaat benen video bu mu defaat ñaawlu ni dal nit ñi dañ ko bëgg jaxase kilifa gogu ak photo yi ni montage ak yoy yep ñaawlu nako ci internet bi ni waxam dal fim ko tawi yobbu ko fa aggu xam nga fim ne ni ku duggon fi re dal ne borom bu mu bulumi ni ma sofé man maay man man man lay wax bu ne borom mbubb bu zone bi yow lay wax moom dafa toog jour tab jour jour bi muy xutba mu ne am na kilifa gu wax nangam ak nangam te booba kenn ko wax muy Cheikh Bass daal di ne woo naa ku dëkk ca kër ga mu ñaawlu ko yooyu mooy jaxase sax quoi parce que parce que man gëmuma ni ku dëkk ci kër kër sëñ Touba te jege sëriñ bi dana ŋàññ ki ñu dénk màggal ki mënta nekk c'est impossible wala bu ko defee ci coxoor la ko def ah parce que sëñ Bay Jaxate moo ni cirub nit cirub nit ku bëggit ba fa pexem yàlla moo gën pexem nit ndaxam fa yàlla yàllay fexee yàqkat yeggu fa fa yàllay fexe raw na bët raw na xel fa muy yokkee aw laram ay bañam xandu fa bu yàllay fexeel aw laram yi wu rëy du diisoo da koy def ñu xëy gis ko fa lu waay rëy rëyub cir du yóbbaale kat cirub nit cirub nit ku bëggit ba fa peut-être xëy na danga naan dama koo mag wala lan moo tax muy am lii te awma ko te loolu day am ci Maam Mor Mbaye day am ci yow mii am ci keneen fi mu ne nii sit bii di réew mi bu amee noon site lay doon comme moom site internet moo naan lu tax réew mi ëpp ma ay vie Maam Mor bu amee noon mooy koo xam ne peut-être day bëgg cëram waaye nag kayfa yasuudu waxu fil asmaani yuxibu salma salba nixmati ixwaani fa inde fadallaayi laysa muttasar yuddi yu man min al basar ngëneelu yalla yàlla gàttañ liwu ci ba nga nan ko joxal mako diw kon nit ñi buñu baye ab ñaar yoy xel rek nañu nañu dal te xamni ni lu way bëgg du am li yalla bëgg moy am waaw. Euh, Mamour mbay nit ñi. saas nga wax legi mom tuddul turu cheikh Bas mais dafa waxe bañu xamni ki ki lay wax mi ngi melni mënon na di wax ba te Ayda. dama naan ndaw si wax def nangam rek ñëpp xam nañ seen ndaw fi mu ne moom moo moom moo jalgati mais moom dafa tudd loo xamante dañoo xam ne sax lu tax ñu ñu ñu jóg tontu ko hmm? dafa seet actualité xool lu nit wax mu daal ne keroog am na ko wax nangam ak nangam ba pare nañ bàyyi bu ñuy wax ñoom naan kuy dee du xamuñu sëriñ bi moo tax man du composé ak ñoom parce que ñun sëñ dafa doon géej ñun xamuñu ci lu dul pot. ñom ñu naan tok la xam nga wala nenañ matul kaas te geej la ñun pot lañ ci xam motax duñu composer ak ñom parce que Serigne Touba ci bopam bu doon faatu touba bi rey ko mo ne woon Moodu Moustapha mu ne ko mbacke mu ne ko dina mam lettre ba fa serigne modou mustapha fek da ko ni dina fi ginaaw giddu tay ana ujarullah bahda haza layli arba mi arta sanate bi dafi yoo danaa fi jóge ginnaaw guddi cay ñeenti téeméeri at maa ngi ci seen biir lor fu mu dàqate maa yóbbu fu njariñ nekkati maa ko indi ku faatu sa kër du yokk moom oustaz boobu di wax bu faatu woon tey premièrement li ñuy def mooy tëj kontam kont bi doom yaa ko moom kër gu mu amoon dañ naan diwa ko moom quatre mois dootul am lu existé sëriñ bi vingt 27 la fi jógee kër sëñ tubaa ca Milan kër sëñ tubaa ca France kër sëñ tubaa yi yokku te bu ci nekk compte sëñ tubaa mi ngi dox compte nag ku koy am jógewu fi te ñun bu ma ne woon daas si tali bi oto nar a jaar ci sama kaw ma ne yaa Cheikh Mat Bamba ot chauffeur ba ne naaj frein ka may woo newul armée li tëdd de dali nag am na loo xam ne mënu koo expliquer nit mënu ko parce que dañu jàpp rek ko fi nekkoon la jóge na fi denc nañ ko yëf yi jeex na non Sëñ Tuubaa romb na foofu du lekk du naan bu doon lekk ka naan tubaab bi poisonné ko ñoom ñii di wax ku ci tubaab bi t digg gi dong kuñ fi suba ba ngoon léegi nga am loo soxla. biscuit moo yëy wala café goo naan wala nangam ak nangam Serigne na dem naa ba dellu si lekk ma lu cin di togg du moroom du nit. oustaz maa ngi koy wax ne ko Serigne bi du nit bi yi ñu ko ji ñoom xamuñu ko du nit. Euh, Mamour Mbaye nit ñi bu lay bu lay seetaan ci ci ci télé beeg euh, ci réseaux sociaux yi tàngoor yi ak léeg-léeg euh, al ji ngay waxee ci sëñ bi surtout bu kenn waxee nga tontu. waaw li ma ñor la rek parce que boo seetloo. sama yoon ci football bi te itam boo seetloo ku ne am nga loolu fi mu ne nii laal fédération de football léegi nga gis suba am ku la tontu boo laaloon président bi léegi waa APR ak jug ko am ku la tontu tudd ko suba jëlal sa suite bi rek suba nga wax dara Macky Sall balaa ngoon nga gis ku la tontu yaa ngi kenn ku ne am na la nax am na ñoo écrit bañ ne boo laal ñuy jóg kenn du saboote seen mbeur nun nak ki nu yor dafa romb yoyu te defut defut lu tax ñu war ko wax dara xam nga li ma wax maam boko delu wut ñukul parce que jammi rew mi sëñ tubaa tax de koku jiñ jiiñ ko ko yéene cheikhul khadim mo libéré peau noir mo dag jéng yi khat fa ka kabla khat ba sa la fadur wala wana fujay lolo waral nak lelek suma su ba ci bir bu may tàng du ko yek man seigne touba rek la gëm jaral na ma nak li barke Cheikh Ahmadou Bamba jaral na ma bakkan barke seigne Touba seigne Touba jaral na ma bakkan billahi jaral na mako waaw. xana fi ne nii moom ci tas coow waaw da ko jarul xam nga amna yo xamne jaruko c'est-à-dire mom seigne top français lu taxaw nara gakal dama ci ci yoonu. dama ne la barke seigne Touba sans passera pas du jàll. moo tax jaralu ñu jóg boo jóg nooy def koy xeexal koy waxal sëriñ bee ko tere day bàyyi par force loolu daa jër a jóg. waaw mu dem fële Madinatu Salaam wéyal fa yëngu. waaw bu demee Madinatu Salaam. waaw boobaa nag ñu xam ne am na lu mu jar mais du doon lépp sax. Omar Mbaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la sant di la gërëm ci yombal gi ñu yombal jotaay bi amoo temps yaa ngi waaj a def émission léegi. waaw émission bi moom euh, ngoon gu jot léeg-léeg dañuy jàngat màggal gi rek mais Café Touba mi ngi dellu si incha allah lundi ñu mu di tàmbali di ko seetaan 18h ma leen di sant seen disponibilité bi ngeen ma ñaanee tamit dama leen di may parce que ñun mënuñoo wax ci lu dul sëriñ bi jërëjëf.